waa alaykum mbokk internet di de parle foot nuyu naa leen ziar leen ah di wax ñi soog a bees seen bi nañu abonné ah, activer cloche de notification bi te aimé vidéo yi te di partager te ngeen de ci commentaire ah di wax seen xalaat ak seen gis-gis waa gars yi te dañu ñëw wax ah, ci li Nabil jëlit wax ci ñëw Boubacar Kamara ci équipe nationale bu Sénégal gannaaw bi nga xamante quotidien boobu l'équipe wax na que ne euh, Boubacar Camara dina ñëw ci équipe nationale bu Sénégal moom Nabil Djelit wax na ci ci plateau RFI moom mi di plateau bi gannaaw bi ñu annoncé loolu moom mën nañoo wax dafa célébré dafa kontaan ci ñëw gi nga xamante ne Boubacar Camara dina ko ñëw ci équipe nationale bu Sénégal. muy wax que ni Sénégal bu amee Boubacar Camara dina am renfort bu am solo ci équipe am dina am possibilité tamit ngir gën a sori ca coupe du monde ba. donc moom Nabil Djellit muy wax que ni Boubacar Camara euh, nee na place am ci équipe nationale bu Sénégal euh, garanti à 100 pour cent bu fi ñëwé dina fi fekk milieu de terrain yo xamanteni ci postam la ñuy taxaw comme Nampalys Mendy comme Gana comme cheikh Kouyaté bari na milieu de terrain yu fi nekk yo xamanteni tay ji euh man nañu wax que ni Boubacar Camara même bu place am garanti à 100 Nabil. am nañ yaakaar que ne renfort bu baax la te saa bu duggee dina wane boppam te dina indi impact ci jeu bi incha allah donc ñun jàpp nañ loolu te incha allah dina am ñun daal gëm nañ que ne ki nga xamante ne mooy Boubacar Kamara dina ñëw ci équipe nationale bu Sénégal te moom lu mu yàgg bëgg la lu mu yàgg a la donc ñun euh, amuñu ci benn xel yaar que bu ñëw ci équipe nationale bu Sénégal rek dina imposer incha allah jël relève bu Gana Gueye jël relève bu Cheikhou Kouyaté donc loolu amul benn xel yaar ndaxte Boubacar Kamara xale bu ndaw la bu ñëwee rek mën naa am sens ci équipe nationale bu Sénégal kon mbokk yi loolu laa leen